taxaw temm ci kanam Amadou Ba di ko aar dem sax ba dajale coow yépp ci jëmmam ji ngir candidat wu Benno Bokk Yaakaar bi mën a am aafiya doxal critique ne Macky yemu ca ndax ngir aar Amadou Ba ba tey candidature am bi daal dinay dekkalaat parrainage parlementaire surnal bi ne Macky Sall dafay ragal gaaya teg dil mbaa ñu lalal ay ndëgg sërëx Amadou Ba ci parrainage citoyen bi Ayib Daffé moom ma ngay wéy ba tey di daw ci ginnaaw fiche de parrainage ngir candidat bi di Ousmane Sonko Vox Populi ñu gannaaw jaabante yu metti yum def ca DG te fa dara démb Sénat la gont foofa it journal bi nee na yi neen la fa génnee ndax dafa fekkul sax président bu Sénat tey nag dana fa delluwaat ndax ayib nee na gannaaw équipe bu bees bi toogaguñu tàmbali seen liggéey ñi fi ne woon ñoo koy doxal ba keroog ña ñëw ñu bees ñooña sax ak seen palin gi jur coow moom la Assane Samb xëy jàngat ci réew mi quotidien gis ni nag président Macky Sall bi mu jëlee dogalu dakkal mandat wu Doudou Ndir rek ña ca des te mel ni ku ko def cib mer indi na coow lu rëy xamoon fal du nu mucc cib coow ndax société civile beeg expert électoral bi di njaga si fas na nu yéene kalaame ja yëf ya ca yoon attaqué décret bi la ñu nar l'info ne dun ca wéet ndax lex africa it fas na yéene attaqué booba lépp décret booba jamono bés bi la jour dañu nettali coow ya mësa am ca onel ak sena te palin jur ko journal bi ne mbiram cheikh awa balla fall mi dafay fàttali mbiram général abdoulaye dieng ak mouvement de soutien ya moustapha touré moom dañ koo contesté woon maanaam ŋàññi ko bu nuppi daal di koy delloo lu jëm ci dogal yu sénat mësa jël tem jur coow nag journal ngay fàttaliku mbiram ndindeeg nduloo mim ni daanduroo lool ak mbiram fiche parrainage yi Ousmane Sonko yi Sonko mooma ay mbiram atte nu ko démb ca cour de justice bu CEDEAO Walf Quotidien ne booba lépp atte état raytan la ca bëgg a def ndax agent judiciaire de l'état naka la nu bëgg a yëkkatee atte ba daa taxaw na ñoom jekkuñu waajuñu woon tam ngir pële plaider dossier bi dans le fond maanaam saytu ko num gën a xóotee waral mu sàkku ñu dàq yëf yi ba jëme jamono le témoin ne waaye loola juge bi da koo gàntal mujjee nañu atte yëf ya juróom-ñaar koy joxe le témoin it nee na Juan Branco mi agent judiciaire de l'état ak avocat état bëggoon ñu seppi mujjee nañ koo soobaat ci boobale procès wuuteeg maître Lari Foussette bu Komor mën ca mujjee génne nguur gu Sénégal nag ba mu génnee ci àtte booba ca cour de justice bu CEDEAO l'info ne daa meloon ni kun sotti ndox mu sedd guy ndax mbiram Sonko mën bëggoon ñu dàq ko mujjee nañ koo ate ba def ko ci délibéré fukki fan ak juróom-ñaar lanuy wax lanu ca dogal lu liste électorale yi les échos ma nga ñuy xamal ne chambre administrative bi dafay mujjee doon cour d'appel journal bi ne cour suprême du àtte doongu yëf yi ci droit waaye itam day xool jëf ya di lee fee ab boroom xam-xam ci wàllu yoon dëggal ko ne noona la buñ nekkee ci wàllum élection cour d'appel ay jëf lay xool li nu leen di toppee ci lettre bi ñu jagleeloon ministre de la justice mu doon wax ci wér-gu-yaramu Ousmane Sonko te mujjee ci mbedd mi ndax ñoo ko jëfam déet lum ci mën a doon teg nañu leen loxo ñoom ñaar ñu bokk ci administration pénitentiaire di inspecteur de l'administration administration bi di Idrissa Sow mi ngi ci garde à vue sax ci dik buñ sukkandikoo ci libération miy xamle ne moom mooma mooy directeur des affaires juridiques ak planification des statistiques jàppuñu ko nag moom kot ndax adjudant Issa Ndione ma mu bokkaloon liggéey ba it libération ne teg nañu ko loxo l'observateur mel ni ku naan ñu ña leen jàpp it am na lu teg loxo ndax kaay bi nee na seeni téléphone moo leen dugal Khalifa Sall ak PDS moom seppi lañu leen def ci kuréel bees gi ci opposition bu wex xàtt bi ñoo ca bootu fas yéene jàkkaarloog Macky Sall booba jamono Pape Malick Ndour jàkkaarloog sunu naataangoy observateur yéey yàbbi ci wàllum émigration clandestine ak jéye yi muy jur mbiram xëyu ndaw yeeg jafe-jafe ya ca am ak jàppale gu président Macky Sall ak projet yu ñu sumb Macky moom a sax ci le quotidien journalu ma jambal jaañ bi ma ngay sàkku ci semga di chef d'état-major général des armées ak takk der yi ñu xayma ñaata ndaw ñoo dugg ci gaal yi génn réew mi jaar ci géej gi géej googa cab gone di judd cib gaal larme bee ko taxawu taxawu it yaayam ci bileb surnaal it duwaañe Ibrahima Fall ma ngay jubbanti Cheikhu Umar Anne mi dànkaafu jàngalekat yi bëgg soobu cib gerew Sud Quotidien ne boobaleb gerew dana am tey ndax talaatay tey ji moom journée morte la kenn du jàng kenn du jàngale sayem sa ak kusem su ñoo ko woote yemook it saye su woote ab gerew ngir bëgg ñu ubbi université bu ndakaaru waral Sud Quotidien naan crise moom bu doon génn na ci njàng meek it dellu siwaat na fi mu ne jàngalekat yi tànkub xeex lañ taxawee kusems sayems ak sayes rawatina la ñuy ñaawlu mooy li état ñàkk sàmmonteeg lam digaaleeg ñoom waaye itam université ndakaaru bi nu ne ràpp tëj te koo tijji enquête ne loolaa waral dëgg jàngalekat yi yëkkati seen kàddu te seen jëwriñ cheikh oumar an ma nga leen di dànkaafu moom cheikh oumar an nag ci laas jàngalekat ya caravas la nu jël bàcc ko ko bàcc yu metti ci yéenekaay bi syndicaliste yaa ngi koy yàq lu mel ni xeme ne kàddu 31 33 SAEMS nag nee na neex naqadi danañu bank seeni yoxo ndax seen préavis de grève sax journal bi nee na déposé nañ ko réew mi quotidien ni waa SAES ñoom fekki nañu étudiants yi ci grève ba nu ne ngir bëgg ñu ubbi université bu Ndakaar nu mu gën a gaawee jamono jooja ñuy xeex ak a ñaxtu ngir ñu ubbi université ab élève terminal moom réew mi quotidien nee na or ban dencoon ngir buñ ko jaayee mu mën caa inscrire bitim réew dem jàngi la ne doñeet sàcc ba mu ko sàccee nag ab bijoutier la ko dem jaayi ñoom ñaar ñëpp lan mujjee teg loxo loxo atte leen démb ci kanam tribunal des flagrants délits boobaleb atte lanu réew mi quotidien di nettali xamalaa la ñu itam ne faala fleur min doon atte démb mujjee naa génn ci kaso bi ba ñibbi ndax fukki fan yi nu ko tëj ngir lettre bu mu doon bëgg a génne ca kaso ba mu ne woon te awut yoon tëdd na ko ba nuppi moodloo moom ma ngay wax ci réew mi quotidien ci ne nuy waajalee mbër waaye itam xarfaxu fay ci làmb ji tax doomi parcelle bi ne sunu sport national ci boppam lan war soppi sunu làmb moom di jàngat Balde bi ne li ko waral bokk na ci xarañ ay mbokkam doon koo wër ama wéetoon lool parcelle gépp defab say topp ci ginnaaw loo pikin booba jamono xajaloo sunu làmbit gis na ne entraînement yee mën xarfa xuufa yi te móodloo sax buñ sukkandikoo ci kàdduy conseiller bi di yaram gëy ci les échos xeex la gënoon a indi niki xarfa xuufa ndax yaram nee na ama daa yee li doon nelaw ci móodloo móodloo da koo mere woon lool ba tax mu buggoon koo kawo dolli